Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 2 septembre 2024 suñ fa jógee dañ del soit ci réforme constitutionnelle mon midi tierno à Alassane salle di président parti politique République les valeurs mi ngi dénoncé daal manœuvre pour que ñu daal di dissoudre lii di assemblée nationale ginnaaw intervention bi nga xamante def na dimanche bi ñu génn muy le septembre ci émission objectif bi nga xamante ni lañ amal foofa ci Sud FM tierno à Alassane salle di député non inscrit ba noppi doon président parti bi ñu les République des valeurs explique na li nga ne mooy gis-gisam jëmale ko dal ci modification modification li di constitution bi ba nopi dal di viser supprimer li nga xamanteni moy haut conseil des collectivités territoriales conseil économique social environnemental suñu sukkandikoo ci réforme bi nga xamanteni du dara lu ben benn prétexte bi nga xamanteni président Bassirou Diomaye Faye jël nako pour dal di tas li nga xamanteni dal moy assemblée nationale mom tierno Alassane Sall dellu siwaat pour xamal ni que daal dafa estimer que gouvernement bi dañu conscient jëmale ko dal ci ben loi bo xamanteni dañ ko bëgg révisioner ginnaw bi ñi adopté dal di wër lepp lo xamanteni da fay discréditer li di assemblée nationale ci bëtu peuple sénégalais ba nopi dal di koy dissoudre pour fatlikou li di benno ñom ci seen bop dañu cautionner benn création jëmale ko ci institution boo xamante ni suñu sukkandikoo ci majorité membre bi ñom ñep dañu joggé ci benn coalition bo xamanteni exception de quelques membres société civile bi ginnaw lool nak dafa doon lo xamanteni c'est improbable pour que ñu mëna détruire lepp lo xamanteni mo moo nekk ci ay structure ba nopi dal di koy expliquer ci ginnaw lool dal mi ngi préciser que li nga xamante ni situation dafa prévoir li nga xamante moy séance plénière ginnaw ñaari institution yi ñoom dañ leen créé par li nga xamante ne mooy constitution ba noppi sukkandiku ci ben révision bo xamante moy article 103 bu am nécessité ginnaw nak lepp lo xamanteni règlement intérieur bi dafa exiger ben majorité bo xamanteni 3 trois e des voix la ñu exprimer jëmele ko dal ci adoption bo xamanteni ni lu ni mel mom lay nuru mu don 99 voix sur 165 bép député dans xamanteni tay da nga présent kii di Thierno Alassane Sall mi ngi estimer que da nga wara taxaw indi ben vingtaine de députés bo xamanteni li di Benno dafa war a joindre jëmale ko daal ci yeneen ñi nga xamanteni ñom ñoo wara a révisionner pour que loi bi mëna passer ginnaw lool nak tay dafa évident que li di gouvernement bi présenter lepp lo xamanteni ben projet de loi la ginnaw bi nga xamanteni amul ben chance dal di dépasser lepp lo xamanteni ci ay semaine yo xamanteni dafa bëgg a dissoudre li di assemblée nationale ginnaw ay député la nak yo xamanteni ni dañu solidaire jëmale ko seen diggante ñom ñi ngi préparer lepp lo xamanteni tay ay élections législatives la ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ci ay liste électorale ba noppi daal di ciy yokk lii di gouvernement bi warul dara lu dul justifié wu lépp loo xamante ni daal bëgg na ko def pour tas assemblée nationale ba noppi daal di présenté wu comme benn nit boo xamante ni dafa impopulaire pour que mu refaire lépp loo xamante ne ay réforme la jëmale ko daal ci progrès moom Thierno Alassane Sall également souligné na benn réforme bu ñu inscrire ci benn programme boo xamante dañ ko annoncé woon par le président de la République ci discours am à la nation du 3 avril bii ñu génn muy programme inclus plusieurs réformes yoo xamante ni parmi yi nga xamante ni ay fonds politique la suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni moy président mom ci bopam mën nako def muy lu logique économiser wala rationaliser lepp lo xamanteni war na passer ci ay fonds politiques dafa don ben simple décret en tout cas ki di candidat malheureux bi nga xamanteni ci élection présidentielle le muy Tierno Alassane Sall dafa estimer arrêt bi nga xamanteni def nañ ko ci fonds politiques yi do dara ludul ben première mesure bo xamanteni dañ ko wara jël pour rétablir yenen ci ay rigueur jëmele ko ci réew mi ginnaaw bu mu ne ben vote en tout cas mi ngi affirmer dal que lepp lo xamanteni dañ ko tontu ci annonce bi nga xamanteni président bi def nako ci création la commission de contrôle du ko et fonds politique ñi ngi commission de daf ko nationale Nous avons dara la habilité pour nous surveiller li nga xamanteni moy utilisation des deniers publics muy ay cadres yoo xamante ni kii di Thierno Alassane Sall indi na ko dal di dénoncer dal li nga xamanteni moy manœuvre bi président Bassirou Diomaye Faye jël ak premier ministre pour bëgg tass assemblée nationale moo tax ñu woté li nga xamanteni moy changer constitution bi alors que amna lu waroon jëk moy supprimer fonds politique yi li nga xamanteni warul jaar assemblée nationale ci décret donc la waroon jaar donc fofu la waroon jëk tambalé